c'est le chef de l'opposition waaye nag euh, euh, loolu yëpp euh, bu ñu koy def aussi pour vraiment mm-hmm. démocratie moom moo may moo may askan mm-hmm. ñii di diriger ñii di opposé wu mais animosité bañ ce bañ cee dugg parce que man damay lancer benn appel mm-hmm. ci njiitu réew mi parce que njiitu réew mi c'est le président de tous les Sénégalais parce que grandeur bi bi doon bi bi bi bi bi waroon am président Macky Sall mooy tey jii suma Ousmane ko feebar ci kaso bi bañ naan mi ngi ci dund ak dund ak dee mu ne ah sama opposant la ah du sama noonu jël leen ko gaaw ngeen xool ngeen koy fajee ngeen fajee ngeen ngeen ngeen ngeen faj ko jël leen ko bu fekkee dafa fekk dafa dafa jar ñu yóbbu ko bitim réew ngeen jël Ousmane Sonko yóbbu ko bitim réew boobaa nañ xam ne kii kat nga baal ma foofu boobu boobaa nañ xam ne kat kii euh, njiitu réew la waaye opposant am du animosité du animosité moo moo jaar moo jaar seen diggante. ba pare pour la stabilité du Sénégal. Hmm. ñu ngi wax tey oppose euh, ñi nekk ci kaso yi muy 1068 détenus. waaw mhm. mais pour stabilité parce que ñooñu dañu am ndey am baay am famille. Mhm. doon doon contribuer ci économie réew mi. Mhm. mais tey ji pour stabilité Sénégal war nañu mën a euh, désengorger les prisons. Hmm, président moo waxoon am na dossier maa ci teg sama conc kon kooku tey je pense que am na même mise boo xamante ne tey ci màggal la ne ñu ngi jëm ci gàmm ah, mu lewetal réew ngi mën a am dal hmm, prisonniers yi ñu ci bari ñu génn leen ñu mën a dellu seen njaboot loolu aussi ñaan la boo xamante ne askanu Sénégal ñu bëri ñu ngi ko ñu ngi ko ci ñaan euh, daanaka daanaka temps bi ñu ma wax benn point aussi gis nga ñun dëkk ba ñu amee gàmmu Casamance hmm. village bi naan Médiek maa ngi dem gis foo xam ne dañ fa rey euh, nag hmm. mais chaque jour liñ fa nekk nag yi dañuy ñëw suba teel fii seen deretu morom tuuru. Mhm. dañuy yuuxu yuuxu foofu daal di kii poussière bi yëpp jóg ma ne waa lu tax nag yi di def lii ñu ne ma nag yi fi mu ne nii ba at fi ñu rendi seen morom. Mhm. chaque jour ñu ñëw yuuxu fa. Mhm. kon su nag yi demee ba ressentir seen méttitu wala seen li ñu ñàkk ci doom seen mm-hmm. seen kenn semblable mm-hmm. rawatina doomu aadama lii ma la wax nii lu am la mm-hmm. seetlu ko peut-être Dakar fii amu fi et tout ça voilà ñoo am sentiment si seen kii asmalaak nit ñi gis nga yàlla sorowuñu de maa ngi nuyu sëñ Bousso bi nga xamante ne ñu ñoo bokk koñ unité 13 mooy suñu imam gis nga gàmm suñu gàmmoo ñoom fii la ñuy gàmmoo fii euh, Dakar la ñuy gàmmoo Touba la ñuy màggalee mais gàmm su yàlla defee daw ma tiwaawoon ma dem ci moom foofu ñuy gàmm gis nga am na heure naan jóg leen ñu sàbbal mhm. yonent bi parce que nee na bâche bu ne dina fa jaar ziyaar fa ok mais ñun ñëpp dañuy jóg taxaw da lay sa yaram day daw mu leer la yonent bi alayhi salaam soroo ñu xam mhm. na xam naa internautes yi aussi bëgg nañ am lu ñu xam mhm. parce que keroog dañu gis euh, suñu yaay yi mooy yaay Pape Abdoulaye Touré mhm. mu génn wax rangoñam tuuru ci dënnam mu vraiment mu mu affecté yu bëri ak yu bëri vraiment euh, suñu yaay mu yaay Abdou Karim Gueye naka la dundee situation bi ak mettit parce que mag la tamit ak mettit ak mag foo ko fekk a metti te moytul ma kii dégg mu ne diw bàyyi naa ko ak yàlla tey mm-hmm. tax réew moomu barab boobu jàmm dafa xew mm-hmm. ndax yàlla dafa fonk doomu aadama mm-hmm. yàlla fonk na doomu aadama de ci doomu aadama yi lu ne yàlla ndaxal na ko ci man damay ragal ku ma ne bàyyi gannaaw Abdou Karim ci kaso bi. Mhm. yéen a gis assistance ci ci ci ci maanaam ci askan wi ak organisation yi. Mhm. Ah, ñuy ñëw au moins de jàppale famille bi. Mhm. waaw déedéet loolu moom gisaguñ ko gisaguñ ko. ah wax dëgg yàlla gisaguñ ko ci ñoom. Hmm? xëy na benn kii ñoom seen. biir ak Abdou Karim li muy mën a xeexal askanu Sénégal. gisoo kenn ku ñëw taxawu famille seen waaye nag moom ne moom loolu mission am la soo xoolee sax mission am la. nit hmm. doo xool li ñu la defal da ngay defal li ngay def ngir yàlla rek tax te hmm. naa ne ci tànk yooyu la nekk. naa ni lépp lu ci wax famille am ñu ngi def njabootam. Mhm. voilà et puis ñoom euh, ñoom seen biir ay am na xale bu góor boo xam ne chaque jour nag moo koy seeti ñun suñu amul jot. Mhm. cher ma di ko nuyu au mhm. passage. vraiment di ko wax ku am mental ku am mental ku am mental. ku gëm yàlla gëm yàlla. taalibe Baye boobu bàyyi bàyyi Baye Niass maa ngi koy ñaanal Abdou Karim. fi mu nekk yàlla na fa jàmm nekk. ci barke seen am. yan kàddu ngay tàggatoo xanaa di di di wax président Macky Sall. mu xoolaat bu baax a baax a baax a baax après vie bi beneen vie. Mhm. te danañ ko laaj doomu aadama bu ne bu mu jiite woon. Mhm. gendarme bi aussi na xool gis nga ay détenu politique na ay xale yoo xamante dañuy wax li nekk seen kii li nekk mhm. seen xol gis nga am na loo xamante ne gis nga suñ leen ko facilité woon du am ay yàq yàq bi gaa kenn rafetuloo ko. waaye du am ba am ay bakkan ci rot. bakkan yi ci rot maa ngi ci jaale am na sama benn sët bu ci bokk voilà moom Mamadou Cissé pare woon pour dem Canada maag maamam ñoo bokkoon benn école ma madame Ndiaye ndeysaan mun wax man ba léegi teguma tànk si këram mm. parce que man dama ko ñiiramtal xale boobu dama ko yàgg ñaanal pour mu réussir mu jàng ba def mm, euh, par université bi laay te moom manifesté woon ah. moom dafa jóge kii jàkk ja di dugg seen kër bal perdu oh, kooku du wax dara xale bu góor boobu ak a sedd ndeysaan mm-hmm. voilà yal na ko yàlla yërëm ci dara rasulullah sallallahu alayhi wasallam li ñuy yëg yal na ko président de la république yëg ba mun a bàyyi xale ñu dellu seen kër mhm. vraiment may wax du courage yaayu Abdoulaye Touré parce que image man gis naa ko man mi bokkul ak moom dara te gëw ma woon ne te gëw ma woon ne dinaa bokk ak euh, frère plateau man li muy wax yëpp dafa daw sama yaram damaa fàttewaat sama bos mhm. dund bosam absolument lu doy waar dund bosam lu metti la kon célibataire ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax maa ngi leen di ah. jaajëfal yéen ma may occasion pour ma mën a wax waa mhm. président de la république c'est pas pour rien ma nekk enseignante parce que voilà famille bu nekk ngay kii ngay ngay ngay ngay ngay ngay euh, côtoyé mhm. su ko defee am na famille yoo xamante ne ñaan da ngay euh, wax wax bu kii. Euh, négocier voilà négocier hmm. loolu la moo tax man. ci négociation rek laay taxaw di ko ñaan man ñaan njëkk ci laay taxaw. ñu ngi ñaan yàlla ñaan njëkk moom ak ak seen nopp aussi. Hmm. ba ba seen frère Abdou Karim Gueye. Hmm. yàlla delloo ko si ay doomam. wéy juram wax nga. sentiment bi mu bi mu bi mu bi ko animé. ay sëram yàlla dellu ci delloo leen Abdou Karim Gueye. Euh, ci jàmm ak salaam. Cheikh Pape Laye Touré. yan kàddu ngay ngay tàggatoo dénk ko waa réew mi. man nag kàddu bu may tàggatoo mooy mooy sànq da nga am wax bu am solo bi nga wax. Mhm. mooy que ne Macky Sall moo taxaw ne am na ay dossiers yoo xam ne moo si teg concom mhm. mais ma jéem a résoudre si côté boobu mu wax. Mhm. mooy que ne euh, Macky Sall bu taxawee am na ay dossiers yoo xam ne maa si teg sama conc ndax damay bañ réew mi tàkk. mais dossier Ousmane Sonko lu tax tegu si conc. waaw tegu bi concom waaw xam nga mais instant bii nii euh, dafa doon loo xam ne nii kumba am ndey la ak kumba amul ndey. Mhm. yow sama opposant nga xam nga foo jaar ma faagaagal la. Mhm. te loolu nag dans un pays normal warul warul di sooxee noonu. voilà lu may gën a résoudre nag mooy. Mhm. mais dafa mel ni engagement bi ne ci Pape Ciré Touré engagement boobu moo nekk ci yow aussi. waaw euh, ndax tamit loolu war dëgg neex suñu borom taala mën nañ ne suñu deret la. ndax ah, mais tamit lépp rek ñu ngi koy teg si lu leer si lu dëggu. ok ndax euh, wax dëgg ne suñu borom wa taala Pape Abdoulaye Touré ñoo ñoo defandoo daara. Mhm. jàngandoo daara xam nga ak lu bëri loo xam ne ni xam-xam la euh, ñu def ko si moom mu leer ko ne ni warul fen warul njuur njaaj warul def loo xam ne du mhm. dëgg. Ah, nit ku jub la daal voilà nit ku jub bu correct. Mhm. gi nga saaru nit yu mel noonu gouvernement bi da leen war a protéger à cent pour cent. buy wax xanaa xamoo ministre Macky Sall yiy génn di def yoo xam ne nii ce n'est pas logique ci biir askan bi dénonceurs yooyu ñoo leen di dénoncer. Mhm. mais kon nag Macky Sall dafa war a di déglu. dénonceurs yooyu noonu nga activiste yooyu noonu nga xam ne dañuy génn di génn di wax loo xam ne nii ce n'est pas logique. ok mais tamit euh, fu may gën a résoudre mooy détenu politique yi bëri nañ. te ta jàpp bi tamit mi ngi mel ni tout leen man la si biir Sénégal. absolument am na sama benn frère boo xam ne fan yii passé la ma woo rek nee ma Cheikh ma ne ko waaw mu ne ma am na sama benn frère boo xam ne université Cheikh Anta Diop bu dakaar la nekk droit lay def. Mhm. mais bracelet wu Pastef la takk. Mhm. ñu ne ko Kirtim Diam. <laughs> doy na loolu si ban circonstance quoi am dëgg naa la wax ne la man de wax dëgg neex yàlla dafa. ñu war a jógee bitim réew màggali dans mhm. Mhm. wax lu nekk si dënnam. ñu jéem a xool solution bi fan la nekkee ñu jéem ko résoudre. résoudre ok jërëjëf loolu la quoi.